naa ko wax di tëjee li nga xam ni moom moo nekk di am di ko métitlu muy grève de la faim sunu sœur yi nekk camp pénal nga xam ni seen condition moo métti ba tax ñuy xiifal ñoom loolu kese mooy arme bu ñu am ñi wër di wax prisonnier warul def grève de la faim damay laajte prisonnier bu ñu tënk mënta dem mënta ñëw moom bu deful grève de la faim ban xeetu xeex la war a def pour se faire entendre bu ngeen ci amee xam-xam rek ngeen wax ma ko xamuma ko ñun ñii ci biti kay yor sunu ñaari tànk yi yor sunu ay làmmiñ yor sunu ay loxo mën a dem mën a ñëw ñun ñoo war a xool ñun ban xeexu combat la ñu war a taxawal pour que ñoom ñu bañ a obligé di def grève de la faim parce que nag bu ñu ko defee rek mooy am na lu sooxee ci sunu ñun combat ak su sunu taxawaay loolu itam mooy dëgg nañ ko xool Ousmane Sonko nag tàmbaliwaat na naka ni démb grève de la faim boo xam ni ñëpp xam nañu jeexital bu mu amoon ci santeem kenn bëgg ko ñi may woo naan ma dañ la ko ñaan waxal Ousmane sunk bu mu def grève de la faim waxal Ousmane sunk bu mu dugg ci loolu dama leen di laaj Ousmane Sonko position bi mu nekk nii ban combat la mën a def moom pour apporter solidaire solidarité avec ses sœurs qui sont en prison ban combat la mën a def Ousmane Sonko gor la nekkam gor moo tax ngeen bëgg ko moo tax ngeen topp ko. Ousmane ko naka lay wootee grève de la faim euh, Cheikh Bara Ndiaye topp ko ci Hannibal Djim topp ko ci Abdoulaye Touré topp ko ci ñeneen ak ñeneen topp ko ci ku ne ci ñoom feebar tey ay jigéenam ay jigéenam def grève de la faim fële ba seen ay bakkan commencé nekk ci xottu gerte kenn waxul Sénégal gi yëpp kenn waxu ci yéen ñii di wax Ousmane Sonko bu mu grève ak ngeen ndékk ngeen reer ngeen sax ñenn ñi séeréer yeeg joolaay reer ngeen bu yàgg léegi ngeen bëgg moom mi nga xam ne ba mu wootee démb grève de la faim jigéenam yi ak càmmiñam yi ak rakkam yi ak ak ndawam yi dañoo jëloon solidarité ànd ak moom ci grève de la faim boobu moom naka la mënee dégg ñooñu tey dañoo jël grève de la faim te ñun ñii ne ci biti defuñu benn initiative defuñu benn initiative pour grève de la faim boobu dakk woote wu ñu marche woote wu ñu euh, manifestation woote wu ñu benn des benn benn activité pour soutenir ñooñu ngeen ne moom bu mu def soutien à cela xoolaat leen mbir mi aussi c'est la seule arme qu'il détient bu doon suñu sagu du ko def parce que ñun ñi ñëpp xam nañ heure bu ko defee mais coono day dikk day dikk ci moom en premier yaramam du ko fekkee ndaxte ku xam début d'insuffisance rénale xam ni même boo lekkee ba tane les séquelles sont toujours la waaye lan la ñuy teg ci seen loxo ñun lan la ñu décider teg ñun ci loxo Ousmane sunk ak ci loxo suñu sœur yooyu nekk camp loolu mooy wax ci ndax dégg naa Maty Sarr Niang dafa sonn trop Falla Fleur sonn trop amidia Dia sonn trop lan la ñu décider ñun def pour ces détenus politiques la ñun ñi nga xam ni ñoo waxoon ne du ñu dem dialogue parce que dañoo téye suñu 1300 détenus moo tax mu mënuñu toog di waxtaan ak Macky Sall du ñu dem dialogue parce que dañu dañu dañu salfaane suñuy droit ñun yan yan jéego la ñu teg tey pour que suñu détenu ñu génnee leen yan jéego la ñu teg pour que suñu droit ñu accepté leen ko suñu droit mooy suñu candidat bokk ci élection yi parce que suñu devoir la constitution moo ñu ko may suñuy droit mooy suñu ay prisonniers politiques te jàpp ñu leen lu dul ci politique dañ leen a war a àtte bàyyi leen waruñu leen métital waruñu dégg ay directeur de prison bi nga xamante ne moom moo ne camp pénal daf leen di métital ba di leen isolé ba di leen refuser ñu jënd ci ay boutique ba di leen refuser ñu am ay appel ak ay visite ce n'est pas normal ce n'est pas normal ñun on est libre ñun on est dehors am na mun am nañ sañ-sañu wax maa ngi nii taal sama live di wax am naa sañ-sañu dox ñooñu nekk prison mënuñu loolu mënuñu loolu kon avant de tout de suite dire waruñu def loolu ñun lañu def lu tax ñu bañ a def loolu loolu moom lay invité tout un chacun di ci commencer sama bopp ndax on n'attend pas de nous que ñu def grève de la faim on n'attend pas de nous ñu xiifal ñoom amuñu beneen arme lu du xiifal mais nag renouons avec les manifestations renouons avec les les réclamations de nos libertés lan moo xew ce n'est pas interdit ce n'est pas parce que Macky Sall bu bu bu ñenn ñi déposer mu interdire que dañu war a systématiquement refuser de manifester nous devons continuer à nous faire entendre bu ñu taxawee taxawaay bu wan ñu ci biir kaso bi ne ñun ñi kat pare nañu pour porter le combat ñoom mun nañ leen wax bu leen bu leen xiif lekk leen naan leen parce que nag sant yàlla on est vers la victoire mais il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose il faut ñu yëngatu il faut ñu yëngatu il faut ñu yëglu déjà sunu ndam lu rëy lii dañ ko war a fêter parce que lii ndam la justice xañ la jàpp la tëj la état jaare ko ci justice juge bu am fit yëkkati delloo la mais dañ ko war a fêter mais ku mënul manifester ci xeex mais xanaa war ngaa mën a organiser fête war nga mën a organiser manifestation de bonheur pour wane sa sa contente ci lii on doit faire quelque chose on doit faire quelque chose ce n'est pas le moment je vous comprends ñu bëri ñu di ko wax dañoo am inquiétude moo tax ñu di ko wax moo tax ñuy woote moo tax ngeen ñuy solliciter mais na ngeen war a comprendre ni man ak ñi ma àndal muy force citoyenne mooy ñi nga xam ne citoyens yi mel ne man ñun de on ne peut pas demander à des citoyens bàyyi leen lii ngeen yor comme arme te joxuñu leen dara à la place ndaxte nag Ousmane Sonko bañ ko nee bàyyil grève de la faim ñaan ko ko dafa bàyyi ay ñaan ko mu bàyyi waaye boobu ba léegi lan lañ teg ci loxo dara xale yi nekk ci prison yi boobu ba léegi biñ ñuy defee grève de la ñeen ñenn ñi bàyyi nañ leen ñu génn même bu ñu leen defee sous contrôle judiciaire mais ñoom ñi ci des lan lañ teg ci seen loxo dara kon nag nit booy xeex li nga am rek moom ngay xeexee li nga am rek moom ngay demee marché ñoom grève de la faim la ñu am su tonoolee Mais levons-nous ensemble, mobilisons-nous, créons des activités pacifiques et descendons dans les rues par milliers, par milliers et par millions. Pour won leen ne leen on ne vous a pas oublié ak pour won leen ne leen on va porter le combat loolu mooy dëgg mais dëgg bidou du bu leen grève de la faim mais ñun duñ def dara ñu ngi téye suñu ay euh, carte di xaar mais entre temps mais lan moo téyeti Ousmane Sonko kaso lan moo ko téye ci kaso dara téyewu ko kaso ndaxte lépp leer na si bopp nit ñi parce que ay yow contumace moom lañ la jàppee moo tax ñu tëj la ci kaso bi alors que yow contumace bi ngay wax contumace bi ngay wax mu ngi ci sa loxo heure boo ko bëggee gis-gis ko ku ko bëgg a gis ci yow lay jaar du n'importe quoi justice sénégalais mosul tollu fii nii li ci des nag fulla ak fayda moom moo koy daj dindi du leneen moo koy dindi avocat yi ñu ngi def seen liggéey Euh, juge ñu ngi def seen liggéey ñu bari ci ñoom ñun citoyens yi nag ñun ñoo war a xool suñu taxawaay ñun ñoo war a préparer wu wu de façon pacifique mobiliser wu dajaloo xool ci yan façon la ñuy woo dañuy waxee ñu dégguñu ci yan façon la ñuy yëgloo ñu dégguñu ci yan façon la ñuy xamal àdduna ne suñu choix kat mooy Ousmane ko mu bokk di ko xamal France di ko xamal États-Unis di ko xamal Union européenne di leen xamal ne leen Sénégal bu ngeen bëggee jàmm am fi le seul candidat de l'espoir le candidat de la jeunesse le candidat de la réconciliation et de la paix il s'appelle Ousmane Sonko c'est le seul candidat que vous devez laisser participer pour que les cœurs soient apaisés pour que les gens puissent aller voter ñoom ñoo ko bëggal seen bopp c'est les Sénégalais qui ont décidé la preuve On est à presque trois semaines de parrainage. On ne sent même pas les parrainages. On voit même des acteurs politiques qui se plaignent que mënuñoo am parrainage. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. du ma guddal live bi parce que am na yeneen frères patriotes yu nekk ci yoon bi di waaj a live je pense notamment au frère Pape Alé que je salue je salue euh, et j'encourage et je félicite parce que jàmbaar la jàmbaar faq tëdd la vraiment bu am ko amutoon dina gën a metti donc maa ngi coupe man sama bopp di dem seetaani laay bam parce que njëriñ dong lañ ciy jëlee ak njàngat donc euh, di di leen wax euh, dañu xawoon sori tuuti rek mais ñibbi si nañu ñibbi si nañu fas yéene waat fañ nekkoon rek ñu delluwaat fa mooy porter le combat jusqu'au soir du 25 février jusqu'au soir du de la victoire parce que nag c'est notre responsabilité c'est notre responsabilité de nous donc maa ngi koy di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen wax ne namoon naa leen di leen wax ne c'était pour repréciser que euh, euh, am na am nañu décision certes fiche yi la ñuy xaar fiche yi nag euh, mandataire bi dina ko jëli nañu am fulay fayda bu toll ni heure bu ko mandataire bi di jëli ñun ñëpp nañu taxaw pare ku nekk ci ñun na xaar déglu jour bi mandateer bi war a jëlee fichier bi seen carte d'identité na ngeen ko téye le même jour na ngeen préparer nag fu ñu leen woo à tout moment ngeen jóg ñu ànd gunge suñu mandataire wala boog bu dee moom kese mën naa dem bu ko jëli jee ñu jóg ci saasi saasi saasi inonder les rues jëli ji suñu ay parrainage ba mat sëkk bu ñu paree nag ñu door a xool kuñ ci may kuñ ci aal mais pour l'instant continuer leen di focus di de seen ay parrainage te itam di refuser la diversion fan yi coow li bare na di des problèmes partout mais ñun on s'occupe de notre avenir on s'occupe de la vie du Sénégal du du futur du Sénégal donc leneen amul solo leneen amul solo lu xaw lu mun ci am Palestine ak feneen ak feneen a ci am li am solo mooy l'avenir du Sénégal se joue dans quatre mois et demi kon lu waay doon def na ko bàyyi lu waay nekkoon na jël dooleem ak kattanam concentré ko ci lii parce que nag si on rate ce rendez-vous ça n'est terminé et ce sera difficile de rattraper euh, euh ce, ce, ce, virage-là. Donc maa ngi leen di jox dig daje très très bientôt di am kontaan te waxtaan ak yéen tuuti ci kàddu yi jërë ngeen jëf. merci merci beaucoup merci ci kër yi et puis ci euh, soutien bi waaw waaw Binta Gaye da ngeen fàtt fépp kay <laughs> fàttali leen fépp rek continuer leen rek continuer leen seen ay seen ay carte d'identité denc leen amul lenn parce que nag mënuma comprendre ñu nekk ci dëkk boo xam ne ñëpp dañu ne démocratie dafa war a am Ousmane Sonko dafa war a bokk mais tey kenn ku nekk bëgg am sa plein de parrain c'est pas possible c'est pas possible donc il faut aussi que nit ñi di xoolaat seen ay action di xool est-ce que li ñu bëgg nii mais mais mais am na cohérence il faut que les gens se pour que démocratie am démocratie mënul am soo génnewee candidat bi nga xamante ne moo gën a majoritaire loolu mënul nekk ndax démocratie c'est la loi de la majorité ku bëgg gagner bëgg nekk président da ngay ñeme jàkkaarloo ak adversaire bi nga xam ne moom moo am la majorité en tout cas des promesses de vote du peuple sénégalais nga ak nga dak jàkkaarloo moom euh, euh, euh, xeex mais doo bëgg rek nañ la ko téyel après comme ça ci benn coup de hasard nga sëgg for présidence bi mu nekk loo xamante ne un président par hasard lay nekk Sénégal mënul loolu ñun un on est sérieux et les Sénégalais xam nañu loolu yéen xam ngeen ni c'est sérieux moo tax ngeen téye seen carte d'identité gën leen téye seen carte d'identité Sénégalais gën leen téye seen carte d'identité amul Maimouna Bousso amul rakk amul mag xanaa ku leen Ousmane ko wax joxal leen ma ko pare te loolu sax foog naa nii Euh, dépassé nañ ko parce que ñun suñu ay fiche léegi ñu jëli ji ko ñu jëli jee suñuy fiche nag ba du suñuy fiche ba mu fees dell après amul problème on va voir nan la ñuy def ak euh, ak yeneen candidat yi nga xamante ne ci candidat liste bi la ñun duñu candidat am nañ candidat suñu candidat il s'appelle Ousmane Sonko le président